an bikum xam na hab chinois bu bàyyeekoo ca Chine Wuhan fa jàngaro ju bon ja nekk moom chinois ba rëcc na ba dugg Sénégal allah wal fa jëri yéen kaay ñu ko xamal kilifa yaa ngi koy wër nag xamuñ fu mu nekk ci réew mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér gi yaram ak kilifa yor ci wàllu wér gi yaram ñoom nag dëggaluñ xibaar bi dàquñ xibaar bi nee neen daal noon rek lañ ko déggee source a yéen kaay na leen chinois bi wang chuu la tudd te mooy yéen kaay ne hee def leen ndànk de chinois bi dugg Sénégal Hong Kong dugg avion turc bëgg ñëw Sénégal waaye Turkish Airlines fa ñoo mujj bañ na ko doo dem Sénégal génne ko kon kër ak avion googu tey mooy na a kaay nee na moo sowe Sénégal ci bomb bu naroon a kalaat ci réew mi ndax chinois boobu fi duggoon xand fi jàngoro ji ñun fan lañ jëm waaye yàlla baax na ba duggut senegal sénégalais yi nekk Chine nag di fukk ak ñetti étudiant delloo si leen ci réew mi borom xam-xam yi ustaas yi wuute nañ ci gis-gis ayaw seetal na ñu wax ne hadis yu nent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fa tere nit bu nekkee ci réew moo xam na balaa jàngoro nga génn fa dem ci beneen réew ndax mën nga koo wàll réew ma nga jëm su ko dee musiba bi gën a yokk xam ñu ne déedéet ku nekk ci jafe-jafe kay fañ ko war a andi yéen a kaay bi ne man daal li ma jaaxal oustaz yi seen werante bi yëpp ci benn xadis lañ sukkandiku ku nekk nam ko déggee la mu dégg ba wax ñu ko moom l'observateur mooy na njiit réew Macky Sall mere na lool réewum France rawatina seen ambassadeur bi nekk fii aa yow seet tal tubaab bi daal fa wax na teer train express bii date ñu wax na la war a démarrer boo mooy tudd ko démarrer de ci la maître Oumar Youm bindee leetar ci turu njiit réew Macky Sall yónnee ko réewum France seen président ba na ko kii bu mu ñu foxantoo yoonam newu ci ni ñu doxalee réew mi naka noonu ñaawlu neen doxalinu Eiffage ba tey ca leetar ba nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne diggante Sénégal ak réewum Canada rafet na jekk na normal na Le Soleil yéen a kaay ñi ko xamal ba tax njiitu jëwriñ yu Canada ñëw na Sénégal gana si fi turbine yéen a kaay na ko juróomi téeméeri milliards la Canada dóor ci taabal bi jox Sénégal ngir ngoro ko gën a dëgëral seen jëflante kuréel bu mel ni Jamra ne Canada nag mbiru góor jigéen ñoo ko gën a fonk ci àdduna bi premier ministre boobu la ñuy wax ak ñu ngi koy artu lu ko neex na wax Sénégal waaye mbiru góor jigéen ay daganal koog sàmbakati njaay bu mu ko fi wax nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Pape Alé Niang journaliste Cheikh Oumar Anne porté na ko plainte sàkk mu fay ko fukki milliards ci suñu xaalis moom moo di ñaa yaw yéene kaay moo ñu xamal ne livre ba Pape Alé bind ci moom nam yore woon kudd moo ko métti nee na fañ koo tuumaal lañ bind du dëgg ba tax avocat yi yóbbu leen ci yoon fukki fan ci weeru mars bii nag ci la ñu jàkkaloo xattekat ba enquête yéene kaay dëggal xibaar bi na Cheikh Oumar Anne Kay contre na attaque sàkku ñu teg loxo Pape Alé Niang ak Mody Niang ba pare ñu fay ko fukki milliards te livre Pape Alé Niang bi nee na bu ko fi kenn jaayati waa grand place yéene ñu xamal ne réewum Sénégal carte gi jaxasoo na fi mu na yow seetal njàng meeg njàngale mi waa G7 seen ñetteelu plan d'action taxawal nañ ko débrayage giraw composition yi moo na a yàqu ci école yëpp naka noonu boulanger yi ñoom it ña ngay ñaxtu dawal kortu oto yi waxi nopp rawatina ndakaaru source ay yéen a kaay naka ma yokkal leen ci courant bu cher bi Guy Marius Sagna mën tëj ca kaso ga ñetteelu mandat ñi tëré Macky Sall ak fexe ba Sénégal yoon moom boppam dialogue national bi li yëpp ay mbir la yoo xam ne yu doy waar yu ñu war a la El Hadji Malick Gakou bu grand parti mel ni ku naan leen xanaa ngeen fal ko fekk fi Macky fay gën a bon de waaye dara du fi baax 2024 nag man pare naa ak sama parti ngir jiite réew mi ci vox populi Malick Gakou wax na ci tolluwaayu réew mi naqare geeg jafe-jafe yi campagne njaayum gerte gi daraa fi baaxut jëwriñ ji dénk wàllu mbay mi Moussa Baldé mel ni ku naan ko xëy doo wax loo xam li ngay wax noonu du dëgg d'accord ma ci de campagne bi lépp normal presque liñ soxla ci gerte jënd nañ ko ñuy yóbbu gerte bitim réew yóbbu nañ huiliers yi am nañu bu ñu kenn ray ak wax bari te fii ak weeru avril ko monsieur campagne bi nag bëri na coow mu la mu naqari la li naqari crédit mutuel bu senegal CMS ba tax ñu amal ay ñaxtu yu ñu bind jébbal ko seeni kilifa laas yéen a kaay ne mbay jonn ba ñu jiital ci umaawo moo leen métti ba tax yéen a bi ne crédit mutuel carte ga jaxasoo na fa de ña nga ci ay problème de faneen fu am problème mooy dialogue politique bi mbiru Karim Wade ak Khalifa Sall arrêté Ousmane Ngom bi jëlee ko fi article 80 dindi ko fi lii daal moo féewale opposition bi ak ku jégi ba léegi mën a guñoo juboo ci tomb yooyu les éco yéen a kaay ko xamal la mu ñu xamal moom l'évidence yéen mooy foire internationale bu Kaolack fi ba njiit la Serigne Mbuub amal na jano ak taskatu xibaar yi ngir def bilan tolluwaay ba nee na fikaa bi ren baax na xam nañ ca sax lu kawe seen njortu ndax lu ëpp junne ñaar téeméer doomu aadama dem nañ fa visite ji stand ya jënd nañ ko ba mu jeex maanaam seen affaire baax na journaliste yi laaj ko na ko waa meeru Kaolack Mariama saar moom gisuñ ko mu ñëw ci foire bi loo ci xam mu ne xanaa ngeen dem laaj ko ko li ma xam daal mooy su ñëwut tamit ay ministre ay président chambre de commerce ay maire kilifa yu mag ci àdduna bi waxuma Sénégal ba ci ay kilifa moom ñëw nañ fi terewul nag jox nañ ko invitation at jot nag ne du ñëw suñ ko koy jox nag askan wi ko fal di waa Kaolack moo tax ñu jox ko ko su ñëwut askan woowu waa Kaolack ñoom ñëw nañ man loolu doy na ma ndax askan wi ñoo ma ñor ku askan wi jox ndomba tànk nag nga war leen a teewal nga war leen a faalewu ma leen deew ma kooku yaag askan wi la ak ñàkk ñëwam daal yëgalu ko sama yaram wi terewut fi kaa ngi dox journaliste yi laajaat ko na ko ngaa waxoon na ngaa bëgg a nekk maire bu Kaolack mu ne leen tey la wàlla a aay la ma waxoon démb mooy sama waxu tey te dara mënta ba ma jógee ci askanu Kaolack sonn nañu damm nañu dee nañu tàyyi nañ ci yorin wu bon wi dëkk bi bu ñu ko askanu Kaolack joxe ki jox kàddu mbay géey bu faas mooy sunu làmb nee na xam na njàqare ci làmb ji ndax sponsor yi daw nañu xaalis amatul ci làmb ji ba pare amateur yu mag yi ñemetuñoo dem seetaan ji ndax fitna violence xeex yi ci am li xam Sénégal ci ñàkk kaaraange ak policiers yi ñuy tuumaal dóor nañ nit ak rey nañ nit ak fitnaal nañ nit ak ci la Dakar Times xëy moom addu fa mu addu moom les éco yéen a kaay mooy soxna suñuy wax yu ndaw ñetti at juróomi at méttital leen toroxal leen ba xale yu bopp di ko dóor ci miir bi ak ay xepp ba ci sotti homo ca seen bët ya ki ya bon l'observateur ne xam na ku ko gën a bon tubaab bi doon tëddee xale yu góor yi ca centre Dakar Sacré-Cœur ba xam na sax ay xibaar yi wax ne 2017 li ni mel xamoon na fa la xam ca wakaam di oustaz boobu ñu wax ne moom it fa yegg ci ay xale taaliba yu mu doon jàngal ca koñ ba te moom mu mujj nangu ko waxal ko boppam libération mu ne xale yam doon def yooyu nag tey ñoo doon nettali yëfee nam tëddee waaye yow ko doon defeek nam leen doon forcé xam na sax ku ne ba moom xale ya fa nekk presque ñëpp ki ñu wax na ab oustaz la yegg na